الرسول له الاسماء الحسنى هو kanamu sunu jàmbaar ji yéen ñi teew fii ñëpp wax leen alhamdulilahi rabbil bu nit amee lu kenn amul da koy fonk ña nekk Amérique sunu sañoon bokk ak ñun jotaay bii ña nekk France buñ leen wanee image yi dina ñee ku woon fii barke sëñ Tuubaa Mbàkke yaay as gor yow yaa tax murit yëpp di laajte fan moo yoonu ndindi àdduna bépp bëgg ñëw ndindi te fii tool yi fii la Serigne Fallou daan jële mu daan récolté di ko def ci jumaa ji sama wayjur nettali na ma ni keroog bi sëriñ Fàllu Mbàkke bi ko sëñ Moodu Mustafaa woowee ne ko jumaa ji laa bëgg nu liggéey ko ñu seet ne suufus Jolof ak Njàmbur ak Bawal ak Saalum fii la tàqalikoo ingénieur tubaab yi gën a mag ne buñ fi tegee jumaa ji poids bi du ko attan du def vingt ans mu daanu sëñ mu Moustapha nekk ca mat ga woo sëñ Fadlu sëñ fal ne ko léegi nuy def mu ne ko nan wàññi superficie jumaa ji la tubaab bi wax sëñ Fallu sukk ñaari bëti umam tooyal ba mu tooy tibb ci suuf si ne nañ ko ki loxo bu tuuti bi ba yowmal xiyaam ma jébbal sëñ Bamba nu may ma ñu dawal tuuti sëñ Modou Moustapha songu liggéey jumaa ji tubaab bi nga xam ni moo convoqué woon war a liggéey jumaa ji muy Teleri porté plainte sëñ Maodo Moustapha ndax gis nañ keneen ku ko gën a ay gën koo yombule gën koo baax baaxle gën koo gaaw gaawle ñu ne sëñ fa sëñ Maodo Moustapha mag ñëpp ne sëñ Maodo Moustapha utal avocat xaalis bi nga naroon a liggéey jumaa ji bàyyi ko jël ci avocat ndax Teleri porté na la ca Ndar sëñ Modou Moustapha jël ay jël otoom nen dindi maa ngoog fekk fii sëñ Fallou mu ne ko lu nga di dox noor mu ne ko téléri daf maa porté plainte mu ne ko ay bul ne dalaa waay danoo mu ne ko dañ ne nuur avocat mu ne ko bul woo kaa wóol kii joxoñ barabu sëñ Tuubaa bi kaa gi kaa sori na wóol kii daal ne ko nu mu tudd mu ne ko téléri mu ne ko bu ko talatut nag bu ko talatut nag nu dawal tuuti deuxième attaquement guerre mondiale ci la Hitler binde woon ne si ce n'était pas les noirs je bombarde la France dans vingt quatre heures et je mets de Gaulle dans un bouteille et je lance dans l'océan Atlantique Teleri moo porté sëñ Modou Safa waaye war naa mën a nekk ndax lan may ma tuuti gis nga gars yi ku la ni kaay nu dimbali la bu mu doon Senghor ma jiwti woon fii lañ ko dimbalee Blaise Diagne fii lañ ko dimbalee Ngalandu fii lañ ko dimbalee Abdou Diouf fii lañ ko dimbalee Ablaye Wade fii lañ ko dimbalee ki fi nekk tey fii lañ ko dimbalee beneen yoon ku muy doon fii la aajo yi fajoo barke si Ahmadou Ba Mbàkke tey la rek ku nay wax mais bi tubaab bi ñëwee fii senegal rey la joor ca deqale Amadou Seexu mu rëppeel ko Samba Sadio Géré Géré mu ray ko Dawme teñ tanoor mu tooke ko Lambaay góor mu kuleen mu génn ko mu génn Damel Yamba sa Yaaye Fall ñu daaneel ko géeju Ndar Samba Law ba Penda ñu daaneel ko gaaru Tiwaawan réew mi ne nem génn góor sañ wax tubaab bi rey góor mu kuleen rey ma Ndumbe Mbooj Waalo Demba Alar ba Fuuta sen cent et quelques alpulaar yi toppoon Cheikh Oumar tubaab yi tër leen fanweeri Damel ak ñett a nekkoon Kajoor tubaab bi rey ñëpp kenn sañut ta wax alxuraan di jooy gisul ku ko nax lislaam di jooy gisul ku ko nax kenn ku ne di daw ko làq ci ba yàgg maami sëriñ Abdou Karim Mbacke Fallilu sëriñu Cheikh Ibrahima Fall bàyyi sëriñ Fallu borom dindi dimbali nu dem Ndar Ndakaaru Konaakiri Garam Basam def looj Mokkel Bataako Abarisit Kutumi Dawme Booma Banaana Kaaciki Fandi Bango Kabdu Saran Leon Kurmaan Jaawa du lekk du tëdd di wiccaxi loxo ëpp ñëpp doole négrier xool ko ba yàgg naan ko dépensar noir ser debal quelqu'un qu'on n'a jamais vu dans notre vie ce qui est blanc dans ses yeux est complètement blanc ce ku wax loolu yàlla na nga yokku jërëjëf Serigne Touba gaay gaay am na sax lu ma bëgg eh eh taxaw leen ma may leen ma. di am mbégte ci ëtt bii ñu la fekk rawatina ci waxtu bii sëñ Mamor kàddu gi nga daaneel léegi danoo nekk ci réew moo xam ni wax fi dëgg sax yombul seere li nga xam it yombul. ndax dëkk la boo xam ni ba ñu tàmbalee di gam-gamlee sama maam Serigne Touba Xaadimu Rasuul la fi dëkk joxu rawatina nag waxtaane koo xam ni boo ko waxtaanee bu nit fiiree gis ci boppam muy Cheikh Mouhamadou Fadel kenn ku ne am nga mbër ci làmb bi waaye sëñ Fallou dafa am contrat bu dox diggam ak sëñ Touba. contrat ba ma ngi ko tàmbalee ci jël lépp jox sëñ Touba nekkoon ko nag min bax di mastaraytumuha min nii ahdaytuha lakum bi xayri man bi diggante sëñ Touba ak yonent bi Cheikh Mamadou Fadal moo ci dox neexut weer wii ñu nekk mooy anniversaire u l'islam sëñ Fallou ne dana lay mën a cëpp bi weer wi amee njuumte kenn ku ci nekk di ci am sikki sàkka sëñ Tuubaa moo wàcc ci dundam ne min haala amriya israul ilahi bihi bi ruuxi wal jismi laylan li samaawaati Cheikh Mamadou Fadil ñëw dox diggante sëñ Tuubaa ak yonent bi ñaara ko waral ñaar fukki kaamil la bindal sëñ Tuubaa ak juróom-ñett sëñ bu sa imaam ne ko xanaa xar baax da cee bokk mën ne ko xawadee rek te ku ne xam ne diggante sëñ Touba ak alxuraan sëñ Touba jël xolam bi bëgg ci siyaare ji Seydina Muhammad ñu xañ ko ko ci zahir tere ko ko ci bàtin waaye mu wax ne sama làmmiñ ak sama xol musul jukki di ko siyaare ji wa huwa allati aqa jismi an siyaaratihi waaye lakin lisaani lahu kalxal bi sawwa waaye aj bi nekk ci sama xol suñu borom nangul na ma ko xaj bi xal bi taxabal waq fi ni xataan moo shay nii wa kammil nii bi ma saani sëñ Fallou am contrat ak sëñ Touba ne ko jaay naa la njureel gi jëndee ko taalibe bi sëñ Touba jóge fi 27 28 sëñ Touba ak sëñ Fallou taxaw ne day siyaare ji yonent bi ngir def ak def ko addee sëñ Touba kon contrat bi taxaw na contrat bi dox diggam ak sëñ Touba 28 la ko seex manul Fadal taxaw ci jamono ji métti jamono crise mu ne day siyaare ji yonent bi daal di jël xalimaam ne xasattu ziyaaratan nabil karim bila zadi an cheikhil xadim dajale ñi sëñ Touba amoon yéene ànd ak ñoom màkk sëñ Fallou yóbbu leen màkk kon diggante si yonent bi ak sëñ Tuubaa contrat ba Cheikh Amadou Fadil moo ci topp 1945 ba 47 liggéeyu jumaa ji dafa taxaw ndax organisation bu am problème ak réew mu nekk ci jafe-jafe waaye Cheikh Amadou Fadil am mbégte yi fas yéene réussir projet sëñ Tuubaa ci Tuubaa bu ñu demee ba 2018 kenn amatul kilifa réew mi jaxasoo ñëpp réew nga tollu ni nga toll ci sëñ Tuubaa toll ni nga toll ci sëñ Fallu taxaw ne maay avocat bi yoonu murid yow la sëñ Tuubaa doyloo ci réew mi ak ndaw li yar ay ndaw ci jamono ji ñu toll te nag réew mi ñu nekk réew mi ñu nekk sa teggin ak sa worma ak sa taalibeeg sa baax moo la mayut yenn yi yaa fi dàq alxuraan gën fee leeru mbind ëpp fi xam-xam tey diisoog sëñ Tuubaa nag ci saa su nekk Cheikh Amadou Fadal waaye nag li ci neex mooy doxe woo xam nga bu ñu demee ba réew moo xam ne ñëpp a ngi nekk ngon ngone ci suuf naan balaa sama aajo fajo ma jàkkaarloog si Abdou Karim foofu la réew mi toll am problème loo xam ne ki da koy nangu wala mu bañ koo nangu sëñ Moussa ba may woy sëñ Fallou ku ko dégg da yaakaar ne sëñ musaa daa far waaye daa am loo xam ne xolam a ko nangu daf ne falil fadli fadlan falaa yu baaxa ñu ne ko ndax la mën a laxat ja wala ba wasaarataha ne wàllu ndeyam di wàllu ñaari baayam ndeyam di baayam baayam ay nijaayam xalifa ndey ja day bawoo bi ngir ay shérif lañ foofa nañ doroobe ndindi gii ndindi gii nga toog tey boo fi sampuloon toog nekkal fi sëñ Fallu toog fii nga toog bu màggal gi jotee dana wéet lool waaye keroog ngay génn rond-point ba ba fii ngay egsi da ngay yaakaar ne xalifa bi yoonu murid fii la nekk aha kay sëñ ngi wax ak ñëpp dañoo xamul ñi muy waxal sëñ Touba ngi wax ak yow ndax tey bariwaana sax ñu dégg la ci dara mbër muñ dégg nga ne barkeb si Abdul Karim politicien bu bëgg jël réew mi ne barkeb si Abdul Karim waxtaankat mbaa jàngkat bu bëgg ku la dimbali nga ne barkeb si Abdul Karim loolu sëñ Fallou la ko defal sañ te bañ loolu kenn mënu ci dara sëñ Fallou la ko defal te nag ba ngay laxasaayu di liggéeyal sëñ Touba ci njabootu sëñ Fallou gi du tey yaa ngi toog fii nga toog di faj ay aajo yoo xam ne ni taxul nga jóge fii nga toog tey képp ku nekk ci réew mi ñun ba ñu jógee suba ba léegi fii la ñu njëkk ñëw teew siyaare si te ñii ñoo àndal ñëpp kenn ku ci nekk mbégte mi la ëmbal mënu ko feeñal sax ci kanamam lii sëñ Maam wax léegi day dëgg sëñ Tuubaa ba muy ñaanal li nga def nii ci ndaw ñii fekk ñoo xam ne ni bu mu nuyu mësaana jot ñu ci kaw tali bi terene nga liggéey lii nga liggéey sëñ Tuubaa ba muy ñaan fàttewul sax ku dul ab jullit sëñ Tuubaa ñaanalul ab murit rek de daf ne wa jumlatil ixwaani min axaari bi fittiini aw fi diini wala bi kooku nattable na ñi boole na maanaam de décentralisé la kenn ku ci nekk fi nga toll ci moom kon su jamono demee ba toll fii mu toll nga toog toogaay bu rafet bii dañu lay ñaanal ci barkeb Sëriñ Tuubaa yàlla na nga fi yàgg sëriñ bi ni nga sore la njabootu Sëriñ Tuubaa gi ci sa loxo bii ci kaamilu rafet yi nga xam ne bindal na nga ko njabootu Sëriñ Tuubaa gi yàlla nañ la ko fulal aw yiw li nga liggéeyal sëñ tubaa te sëñ tubaa dañoo xamul di ko tax a wàcc sëñ tubaa day xool mag ñi ba yàgg mu ne xanaa xamu leen ne lema dàq ci la saf suukar te ma dàq lem bentu ko tubtu wa xasaltu xasla fa li xalaa watan tafuqul asla sëñ Moussa Ka ne sëriñ tubaa ku ko mos mu mos la loo si doodotul saf ngir jaf ka mbàkke noo ngi lay bégee noo ngi lay ñaanal di ñaan njabootu sëñ Fallu gépp suñ borom sàmm leen te aar leen waaye nag na nga xam ne ñëpp la bëgg ngi dégg léegi Mamoor di ko di wax ne li sëñ tubaa defal réew mii ndare kon ñu xam ko ndare kon ñu xam ko yàlla nu sëñ Touba dimbali nag ñu xeeñ ci seen jëmm yi ba xam sëñ tubaa ba góorgóorlu ci aslëf bi may ñëw jëmm jii ma àndal muy sëñ Mamour Bousso muy sëñ Abdul Batalib kii ku la bëgg la Mbàkke waxtu wu ñu toogee maa ngi moom wéet ci yow la ñuy wax waxtu wu ñu toogee rek maa ngi moom wéet ci yow la ñuy wax soxna sii nga ko jox muy soxna waal kaddu ya nga ca boole ak yéen a ji ci am toog nañ di waxtaan ci yow bii ba ay guddi yu sori ma ne ko giñal naa la ci sëñ tubaa ni sëñ Touba am na missionnaire yoo xam ne moo leen làkk ci ruq di leen defloo li mu leen di defloo ruqam bii mu toog ku demul ba jàkkaarloog moom xam barki démb wax naa ko ci kamu kanamu sëñ Abul Baraka barabu Cheikh Madul Fadil bii ñu yeesal ma ne leen barab bii ku ku dul ku waxut asadu an laa ilaha illallah sax sa sa dërëm war na caa dem ndax nag barab bi dégg na aajo ju ne am na aajo yoo xam ne bu barab bi day génn di ko wax kon àdduna sépp tukki kon képp ku gis ku bokk ci sëñ Fallu rawatina koo xam da ngaa jaay li nga bokk ak sëñ Fallu tey da saf li sëñ Fallu doxale woon digganteem mag sëñ Touba ndax ba mu ne jàkk sëñ Touba xam lim ne moom da koo jaay te sëñ Abdou Karim xàmmewul képp ku ko féete ak mag ki njabootu sëñ Touba kum gis jàpp na ne moo la war a teral moo la war a defal moo la war a jaamu Mbàkke yàlla na fi yàgg lool te wér bàkke sëñ Touba ndeke bi sëriñ Touba nammee am ku wàcc xettali jaam ñi te mel na ni sëriñ tubaa daa awoon ci tànki rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci wet googu nanu doomam yëpp la denc doog sëriñ bi it mel na ni doon na doxe noonu ndax Mbàkke Bawol la mu fa denc kenn xamul nu toloo te xam nga ne sëriñ bi doomam ju toog tewu ko waaye doon gi mu doon rasulullaay arfan bi arfin faaw mu feeñ ci mbiram waaye moom mbiram yàlla dana ko sa mbir day wéy ndax yaa mujj jamono kenn dootu la wuutu maam Cheikh Rafal di dox ba agsi Daaru Salaam suuf si nuyu ko maam Cheikh Rafal nee na ma xool ci xibla yëpp xaw ma ku may waxal kan la nee na suuf si ne ma man mii maay bëgg a wax ak yow nee na ma sukk sama ñaari batuwam mu ne ma sa sëriñ bi daa yara dal nee ko bu ñëwee ci man danaa ko warlul doom ju mu amati mu dund ba muy ñëw da doon damm ngeer yi ngir xàmmee yoon wi xool leen niteeg maam Seera Fall niteem ngir bañ a tey fàtte suuf si tax ngeer gum romb da koy damm ba mu agsee sëriñ bi sukk ñaari bëtu om yi ne ko Mbàkke gis naa kiimaan mu ne ko lu mu doon mu ne ko damay gor ba mu yàgg am suuf su ne ma nuyu ma xaw ma li may nuyu lu ma mu ne ma man suuf si may wax ak yow ma ne ko lu xew mu ne ma sa sëriñ bi daa yara dal nee ko bu ñëwee toog ci man suuf su ah, doom ju mu amati danaa ko war loolu mu dund sëriñ bi ne ko fan la mu ne ko ak daaru la ci saase la ko maam Seera Faal ne ko ak daaru la mu ne ko ndax xam nga xam nga ko mu ne ko nan dem fu jaaroon maam Seera Faal ne ko fii laa jaaroon bañ agsi sëñ bi ne ko hakaza fii la fa la ko sëriñ Tuubaa gërëmee daa am ku muy bés ba mu yàgg am ku taxaw na ko sëriñ Tuubaa gërëm na la kooku na waddat na ko ngërëmul yàlla mu ne ko waaw gërëm na ko de kooku waxul ngërëmul sëriñ Tuubaa de dana ngërëmul yàlla te sëriñ Saliou nee na ngërëmul yàlla mooy ngërëmul sëriñ Tuubaa nee na ku ko làq am nga ngërëmul yàlla fa la sa waajur feeñee weer yëpp na fi mu mënoon tànn weer wu ko soob mu ne waaye man damaa xëjul ci wenn weer lu dul weer wu wéet wii muy rajabul fardi lasurul urum ñeenti weer la weeru diggi weeru tabaski weeru tamxarit weeru kazu rajab waaye moom rajabul fard lañ koy woowee Sëriñ Tuubaa nee na daa wéet ci lañ tere woon yonent bi ne ko bul jëlee ci jaas yi jëmee ko ci kaw kenn suñ la attaqué sax muñal xam nga loolu lu muy waral ndeke Sëriñ Fallu mi war a seral mbir mi moo tax weer woowu sedd dama lay wax mbir de gis nga yàlla fa mi tàmbalee mbir yow doo ko xalaat sax